أعوذ بالله بسم الله إن ولي الله وما توفيقي إلا بالله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ala xayri xadimihi abdillah asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi ñu teewlu ci seen site bi di alxadimiya tv ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaar bu ko defee fas yéene dellusiwaat ak yéen ci silsila bi nga xam ni moom lañu tàmbali woon lépp jëm ci njàngaleem fiq mooy sew-sew yi nga xam ne moo aju ci wàllu njàngaleem fiq ñu tuddee woon ko daqaa'iqul ulum silsilatu daqaa'iqul ulum ñu nekkoon ci bunt ba am solo nañ ko wax mooy bunt boo xam ne waxtu wu nekk nit ñi dañuy nit ñi dañuy jonjowante ak moom mooy li jëm ci wàllu sëy ak pas-pasu sëy ak yi nga xam ne moo ci aju woon nañ ci ay jataay yu xaw a limu tàmbalee ko ci ponk sëy ak sart yi nga xam ne moo ci aju noonu lañ ko toppee ci xaaji ba tey jii ñu egsi ci bi nga xam ni tey moom lañ bëgg a waxtaan ak yéen mu jëm ci al ankihatul faasida muy pas-pasu sëy yi nga xam ne dafa yàqu muy pas-pas yoo xam ni saa yuñ ko fasee ab sëy ci yoonu sariya dañ koy firi ak ànd amagu ca bu fekkee ànd xas na ca am nag boobaam mën nañoo bàyyi mu na la nga xam ne moo ca joyoon ñu joyanti ko kooku la ñuy tuddee nikaaxun faasit wala buñ ko bolé ab lim mo nek al ankihatul faasida moy pas-pas yi nga xamni wirut nga xamni ci atib sari moom dañ koy fecc dañ koy fecc lool nak da fay séddalikoo ci ñaari xaaj mom pas-pas sëy yooyu nga xamni wirut dañ koy tuddé bu yaq am ci xaaj bo xam dañ na xiss téléphone fi dañ ci wuté ndax yenn ci borom xam-xam yi dañ ni sëy bi wér nañ ñu gis ni wirut dañ na dañ koy firi ñu gis ni wér na boobaa dañ na dañ koy bàyyi non am ci benen xaaj bo xam itam ñu ko tuddé khismun muttafaqun ala fasadihi am ci xaaj boo xam ne yitam moom boroom xam-xam yëpp dëppoo nañ ci ne moom sëy bu yàqu la nga xam ne moom dañ koy firi xablal binaa i wa baadahu nga xam dañ naa moo xam ak jaxasoo am na seen biir wala ak sëy amago seen diggante yëpp boobaa dañ koy firi bu ko defee yooyu nag ay xaaj yu bëree bëri la waaye comme que dañoo bëgg mu xaw a limité wu mu yoo xam dañ koy joxe ci anam gëm gën a tënkoo rek bu ko defee léegi dañuy indi benn xaaj ñu bu ko defee buñ dellusiwaatee doog cee ñëw incha allah bi nga xam ne ci li ñuy ñëw mooy sëy boo xam ne dafa yàqu pas-pas ba baaxut ci anamuk can gi nga xam dafa aju woon ci can gi can moom ci jataay yi njëkk ci wàllu sëy waxoon nañ leen dafa bokk ci ponk yi mel arkaani nikah mooy ponk yi nga xam ne bu fekkee amul ci ab sëy booba sëy ba du baax bu dee ak can ci la bokk waaye am na sëy bi itam wala pas-pasu sëy bi am na yu ko mën a gaar yu aju ci can gi yoo xam day tax ñu ne sëy bi baaxut bu fekkee xas na fasu itam te ab sëy amagut ci diggante ñaare way dencente yi dañ daa day des koy fecc wala boog dañ koy tas moom sëy boobu bi ci njëkk mooy ak can dañoo waxoon ni ki koy joxe na koy joxe mu doon lu laab loo xam ne sañes na koo jëfandikoo ci saria bu fekkee da koo joxe ci loo xam dafa araam lu araam nag bi ayi ni yi la ñu wax waxuñ la alal ji nga xam danga koo fàggoo ci anam gu araam joxe ko waaye mooy jëmmi lu araam lañ tere foofu te mooy lu mel ni sàngara si nga xam ni xam nañ ni dañ koo tere ab jullit wala lu mel ni ki mbaam xoox wala yu mel na mu joxe ko ak can bu fekkee xam nañ ni sëy bi can gu nii lañ ci joxe afa ak jote di am ci diggante ñaari way dencante yi sëy ba dañ koy dañ koy dañ koy fecc dañ koy fiiri dañ koy tas bu ko defee bu fekkee nag ak sëy xas na ci am bu ko defee xëy na yooyu danañ ci dikk boole ko incha allah ba ca topp ba tey mu aju ci wàllu can gi mooy koo xam ni nangu naa joxe ak can nañ xam ne nag moom fa ñuy fasee sëy ba teewal fa ak can nekku ci sart loolu mat naa xam du caagee ne fa ñuy fasee sëy ba fa la ñuy teewal can ga donte lu ëpp li muy am nag mooy loolu nga xam ne fa la ñuy fasee fa ñuy fasee sëy ba fa la ñuy indiwaale can ga waaye loolu du ci sart donte ba ñuy fas sëy ba tudd na ak cant ak can néewu fa itam du tee ba tey sëy ba dana continuer waaye la muy joxe ak can nag na doon lu ñu xam maanaam bu mu nekk lu ñu réere maanaam dig ba boog laa bëgg a wax maanaam dig ba muy joxe can ga bu ko neexee sañ na ni dig bi mën naa koo joxe wala can gi mën naa ko joxe fii ak weer wala fii ak ñaari weer wala fii ak nangam joxe daal digg bu ñu xam waaye li ñuy tuddee ajalun majhul moom ku ca joxe ak can wala boog képp koo xam dafay joxe ak can ba noppi joxe ci digg boo xam ni kenn xamu ko boobaa ba tey sëy boobu dee su ko nangu wala ab sëy du fa fasoo lu ñu xamal mooy lu mel ni que mu nekk tukki woon ba mu ñëw te kenn xamal kañ lay ñëw la réeroon ba mu feeñ te kenn xamal kañ lay feeñ kon dañuy wax ni sëy boobu ba tey itam bu fasoo ci anam googu buñ ko yegee njëkk ak sëy di am seen diggante boobaa dañ koy fecc boobaa sëy booba dañ koy tas walla sax nga xam da cay joxe digg bu sori lool ndax ak can itam la ci gën mooy loo ko gën a mën a joxe moo gën ndax jigéen gi moo ko yeyoo mu di ak moomeelam nañ ci joxe kon dig boo xam ne digg bu gàtt la bu ñu xam waaye fekkee da cay joxe digg bu sori lool am na ñu ko yóbbu ba juróom benn fukki at surtout na aman aw saada xam xamsiina aman ni ko boroom Siraaju Saali waxee daan ne euh, mooy boo xam ne ëpp na sax juróom fukki at xam nag bu dee téere yi nga xam ne téere yu njëkk yi moom léeg dañuy waxee ci anam goo xam ne ñoom fa ñu doon waxee dafa xaw a yàgg day dem ba jamono daf koy dépassé te lislaam itam léeg-léeg àtteem dafay aju ci orf mooy aada ni ñuy doxalantee loolu ba tey buñ ciy xool léeg-léeg mën nañoo wuuteeg ñoom ay araf léeg-léeg mën nañoo wuuteeg ñoom itam ba tey ay milliers yu ñu nekk kon yooyu yëpp dañ koy bàyyiwaale xel léeg-léeg ñuy jàngale di dellu ci téere yi nañu bàyyi xel ni téere yi seeni jamono am na ci yoo xam dafa yàgg bokkut ak jamono ji ñuy waxee nga xam ni bokkuñ ay araf bokkoon ay milliers bokkuñ itam naka noonu ay tolluwaay bu ko defee yooyu dañ ko cee bàyyi xel bu dee orfu fii nag bënnee can gu yàgg mooy loo xam ne ëpp na at boo xasee mat at ndax moom xamun ak can nit ki di ko joxe ñuy fas ab sëy ba nopp mën naa dama koy bàyyi ba fii ak at wala ñaari at moom boo xasee tudd at wala ay at rek boobaa léegi dañuy tudd lu yàgg la kon bu ko defee itam sañu caa digal ay at moom can nga kon na ca joxe dig boo xam dig bu ñu xam la bu fekkee joxewul ko mu nekk lu ñu teew waaye itam bu mu nekk loo xam ni dafa dig ba dafa gudd ba ca topp mooy bi nga xam ni sëy ba pas-pasu sëy ba mën na caa yàqo ba tey aju ci wàllu can gi mooy bu fekkee dafa bëgg joxe can goo xam ne manqué na rubu dinaar ndax ba dee can gu gën a bari moom amul fa mu yem mën naa nekk ay million mën naa nekk xaalis bu bari ni ko alxuraan waxee xintaar waaye nag li gën a néew ci ak can moom xam nañ ko dañ naa mooy loo xam ni bu ma manqué rubu dinaar rubu dinaar mooy li nga xam ni bu ko nit kee sàccee ci alal manees na caa dog ab loxoom nga xam ne mën naa bañ a sori cinquante mille wala ay vingt-six mille yi nga xam moom lañ joxe xëy na du sori foofu bu ko defee can moom lu mu néew néew néew bu ma manqué loolu bu fekkee manqué na ko rek boobaa dañuy wax ni kon sëy boobu ba tey itam bu ñu jegee ni lam joxe matul ak can manqué na rubu dinaar afa ab sëy dafa ba tey dañ koy firi sëy bopp dañ koy tas bi ci topp mooy bi nga xam ni kañuy fasal sëy ba da caa sart da caa teg ay conditions yoo xam ni àndul ak wéerug pas-pas ba ndax wéerug pas-pasu sëy am na ci lu muy tënk loo xam ne mooy tax ñu ni pas-pas bi wér na waaye am na ci loo xam ne bu duggee mën naa yàq wérug pas-pas ba lu mel ni ñu ne ko joxeel ak can sàngam ma loolu da ngeen bàyyi ma seet ko fi ak ñetti fan wala fii ak ñaari fan boobaa sëy moom maanaam ci jataay ba lay fasoo bu ko mënut lépp loo xam ne wax na ko d'accord nañ ci jataay boobaa sëy boobu dafay firéeku ab sëy du fa am alxayru du fa jib bu fekkee itam dafa wax sart boo xam ni ba tey dafay dàquwanteeg wéeruk pas-pas ba ba tey moom itam dañuy wax ne sëy mën na caa firikoo te loolu mooy lan mooy lu mel ni mu ni bu ma ko takkee kat guddi képp lay joteek moom wala bëccëg képp la ñuy gisee maak moom joxe ci ay sart yoo xam ne maanaam bokkut ak li nga xam moom lañ xam ci sëy ndax sëy moom day mel ne ànduk dund la goo xam ne kenn ku nekk dafa am ay àq yoo xam ni da koo war a sàmm digganteem ak moroomam waaye naa joxe sart yoo xam day mel ni moom moom jigéen gi nga xam ni bagaasam la boo xam ne saa yu ko neex saa yu ko neexee utiliser saa yu ko neexee bàyyi loolu te bu dee sart yooyu dafa xaw a niru loolu moo tax nga xam dafay dàquwanteeg wérug pas-pas bu bu fekkee sart yu mel noonu du ko caa teg ba tey itam boobaa dañuy wax ni sëy ba bu fekkee sart yooyu ànd nañ ca sëy ba wéy bu fekkee may nañ ko mayee nañ ko itam boobaa dañ koy firi bu fekkee ak jote amagut yii yëpp ma wax nag bu fekkee ak jote amagun mooy fañ koy firee nga xam ne sariya mooy ñëw daal di dàq sëy ba firi ko mooy bu fekkee nga xam ni ñoom ñaar jotaguñoo fanaan bu fekkee yàlla dogal na ak jotee am seen diggante ba noppi nga xam ne góor gi ak jigéen ji wéet nañ ci yi ma tudd yëpp boobaa teewul dañ naa day continuer waaye mboolem sart yooyu nga xam ne moom lañ ci ajoon ba tax ñu ne dañ koy firi boobaa yëpp nag dañ koy jagalaat maanaam la ca joyoon dañ koy joyante bu fekkee can nga da koy joxe woon ci lu araam dañuy weñ loxoom ni ko joxe ko ci lu dagan nga xam ne can nga da koy joxewaat ci lu ñu xam loo xam dagan na ci sariya bu fekkee daa waxoon di joxe ak can ndax sëy boo xam ne ak can amu ba tey itam du wér foofu dañ koy bàyyi woon mooy isxaatul mahari koo xam ne moom dafa déggoo jigéen ji ci naa la takk waaye nag ak can du am suñu diggante loolu itam saa bu njëgee ba yang ba ba saa bu demee ba yëg koo xam ne ñoom ñaar kan ndekk dañoo rotal ak can amul ci diggante ba tey sëy boo dañ koy firi moom sax nga xam ni daa joxe ab dig ngir joxe can ngi dig boo xam digg boo sore wala dig boo xam ni kenn xamu ko mooy itam boobaa dañuy wëññaar loxoom bu fekkee jote xas na am ba noppi dañuy wëññaar loxoom ni ko joxe ko ci lu ñu xam joxe ko ci dig bu ñu xam dig boo xam ni soriwut bu ko defee yooyu yëpp mooy la nga xam da ci joyantoo ñu fexe ba joyal ko bu ko defee sëy ba dal di continuer bu ko defee yooyu yëpp nag dafa am xaaxida boo xam ne moo koy tënk yi itam mooy bépp sëy boo xam ni bañ koy firi fekk na ak jotee amagut seen diggante ñoom ñaar boobaa can gañ waxante woon dara du ko jox jigéen ak góor sëy ba nga xam ni fas nañ ko te mu nekk sëy boo xam ne wérut ci sariyan bu fekkee ak jote amago fa boobaa ak can waru ca mooy góor gu waru koo jox ak can waaye bu fekkee nag avant ñu koy xam banaa dañ koy bàyyi mu continuer nga xam ne ak ak jote xas na fa am ba pare boobaa nag dañuy bàyyi sëy ba mu continuer bu ko defee la nga xam ne moo ci joyoon ñu dal di koy joyanti loolu xaaxida bu siiw la mooy yëpp jote goo xam ne am na bu fekkee pas-pas bu wérul la boobaa da cay joxe ak can bu fekkee ak jote amagul nag ñu tas sëy ba boobaa kon joxe ak can du ci am loolu la faqe bi di tënk ci ñaari bay di mi wax ne wa kullu fasqin baada massil baali fiihi l musamma aw sadaqul misli wa kullu fasqin baada waaw wa qabla massin la sadaqa yalzamu bu fekkee avant muy joteeg jigéen nag jigéen jëla nag kon boobaa ak can du ca war kon bu ko defee loolu ab xaaj la ci yi nga xam ni dañ koo tuddee al ankihaatul faasida mooy pas-pasi sëy yi nga xam ni wérut ak bu fekkee wérut tam lan moo cee sart lan moo cey atteb lislaam lii bokk na ci kon bu ko defee dañuy bàyyi xam naa beneen xaaj bi buñ ñëwaatee ci jataay bi nga xam moom la ñu dëgmal dal ko ciy leeral insha allahu taala ñoo xam li ñuy wax lépp nag mi ngi tëngu ci al mashabul malik yi mashab imam malik rahimahullah wa axiru daawaan alhamdulilahi rabbil alamin wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu Let's go.